mbokki internetu vingt 24 dellu siwaat di leen nuyu bu baax a baax di am mbégte ak bànneex saa su di àndandoo ak yéen di leen indi lenn loo xamante ni njariñ lay doon ci yéen tabaarkàlla macha allah di leen wax rek wéy leen di abonné di aimé tey partagé li nga xamante ni ñu ngi koy indi ci biir kër Mbaye ndax euh, bànneex kese ak njariñ kese ngeen fii jëlee waaye nag ki ma indi yaakaar naa ne jaratul may wax ci moom ki ma indi du gan ci yéen ñi nga xamante ni yéenay mbokki internet yi waaye ki ki ma indi ci boppam damaa dund ak moom récemment euh, preuve boo xamante ni tabaarkàlla macha allah bu ñu ci duggee rek di ngeen xam ne lépp dëgg la du ay caaxaan ndax yàgg ngeen maa gis ak moom. dinañu waxtaanee ci li nga xamante ni mooy kaaraange ak ubbeeku dinañ waxtaanee ci wàllu seet cat ak bët ak làmmiñ dinañ waxtaanee ci wàllu rab ak noob waaye itam dinañ waxtaanee ci li nga xamante ni moo lëmbee jamono gi mooy faxas nit ki rek mu ni meng mooy ki lay delloosi ci biir kër gi kooku kan lañ koy wax. moo Modou ture yaakaar naa ne miin ngeen ko ci plateau Kër Mbaye dama koy bàyyi mu nuyoo mbokki internet yi. waaw di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. di jiital ci nuyoo bi cheikh Mouhamadul Muntaxal Bachir di ko ñaanal fan wu gudd ak wér ba naa lim am ci liggéeyal ko maamam suñ borom sottil ko. amiin di ko ñaanal mbooleem xalifa suñ borom may la fan wu gudd ak wér ak kàttan ba naa li nga am ci liggéeyal ko sa maam suñ borom sottil ko. amiin waaye tamit di la fay nuyoo yow soxna Mbayang waaye tamit di nuyoo euh, libaas mi nga xam ne moo nekk ci euh, caméra bi. Mhm. di wax mbooloo mi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum asalaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, sëñ Modou defe naa ni lu tolloog ñaari weer a ngi nii loo xamante ni rarement nga koy def sax euh, palaato Kër Mbayang gisu la mu mel ni que dafa am ci yitte yoo xamante ni yooyu nga nekkoon man ndax cee ñëwal askan wi. waaw soxna Mbayang hmm. euh, am loo xam ne dafa munta ñàkk. dëgg la. mooy munoo toujours di génn ci écran bi. Hmm. wala guddi gi ngay def live. Hmm. ba pare nga ne dangay ñaan. ndax ñaan dafa am temps bu bari bu mu laaj. dëgg la commencé ci moment bi ngay wut garab bi. Mhm. bi nga koy liggéey. Mm-hmm. ak moment yi nga xam ne yaa ngi war a nekk ci sa bopp ngir jaamu yàlla ndax dafa am loo xam ne da nga koy def muy sa diggante ak suñu borom la. Mm-hmm. ak li nga xam ne dafay dox sa diggante ak nit ñi nga xam ne ñoo la yaakaar ginnaaw yàlla ba ñëw ci yow. dëgg la mooy waral yenn saa yi mën ngaa toog ab diir soxla ma. xëy na mm-hmm. doo ma mën a gis. la ndax damay fekk ma nekk ci liggéey bi. dëgg la waaye du du dara rek lu dul ne nekk ci liggéey bi rek. ndax man damay wax ne képp ku ma gëj a gis jërul nga may laaj ci lenn lu ma nekk lu dul ne doomi aadama yi dëgg la waaw loolu rek mooy waral xaw gee gëj a gise wala xaw gee gëj a toog di def émission muy lu am solo nga ñëw ci loo xamante ni mën naa jàpp ne dangaa reere sax sama ndekki parce que dama doon bëgg laaj sa diggante ak garab lan la hmm. parce que sëñ du ku ñëw sa kër dina xam ni caaxaane woo garab hmm. moo xam reen la moo xam sunguf la moo xam xob la hmm. te nga jàng alxuraan tabaarkàlla macha allah. ba mm-hmm. wàcce ko. Mm-hmm. waaye itam jàng ci lépp loo xamante ni xam-xamu alxuraan la. Mm-hmm. waaye nga jël garab itam def ko muy sa mbiri bopp. sa diggante garab lan la. waaw damay wax ne maanaam garab moom. Mm. képp koo xam ne da bëgg di faj aajo yi nit ñi ginnaaw yàlla. Mm. yàlla di la ci dimbali. Mm. di ko jaarale ci sa loxo. muy sotti. il faut nga nangoo xam garab benn. soo ko xamee ba pare tamit nangu di ko wuti. dëgg la. ndax soxna mbay dafa am mbir yoo xam ne garab da cee gën a gaaw. Mhm. da cee gën a gaaw mooy. Mhm. yenn saa yi di nga comp benn sunguf boo xam ne boo ko compee di ko jox nit ki sax mën na koo xeeb. Mhm. waaye bu demee ba jëfandikoo ko maanaam danaa lii li munta nekk. li koy waral mooy garab. garab dafa am lu ci nekk loo xam ne. faaw nit ñi xam ne ne. képp kuy sëriñ war a war a mën a yëngu ci wàllum ñaan war ngaa fexe maîtriser garab te nanga koo wuti. man nag garab dama fekk dama cee judd judd gi mooy depuis ma nekkee xale. dañ ma cee toqatal may am mag ñu ma doon jaxasool ñoo xam ne ñu ci baree bari du ñu woon sax ay olof mm. nga xam ne ñoom garab rek lañu daan jëfandikoo waaye man comme man dama yàlla dafa ma dimbale woon ma teel a xam secret yi alxuraan ci yu baree bari mm. jële ko ci samay maam ju baree bari moo waral bu ma daan jaxasoog ñoom dañ naan ma dañoo bëgg a xam alxuraan ay secret ci alxuraan hmm. bu ko defee ma it ma ne leen man naa leen cee xamal waaye ma it damaa bëgg ngeen xamal ma ci sunguf dëgg la mooy waral nag kon sunguf damaa dem ba maanaam maîtriser ko ba nga xam ne hmm. maanaam foo ko takk weesu na ko loolu nag li ko waral mooy mooy damaa jàpp ne xam-xam waaw faaw nga xam alxuraan ndax alxuraan lépp lu nit ki bëgg mu hmm. ngi ci alxuraan waaye na nga xam ne alxuraan saa boo ko liggéeyee boole ko ak sunguf maanaam la nga bëgg maanaam da nga ciy am lu kawe sa njort ci jooni jooni foo ma fekk mm. sunguf dama koy jëfandikoo ba pare tamit ma jox la benn secret mooy mooy da ci am nit ñoo xam ne bu ñëwee alxuraan mm. waroo leen koo jox dëgg la déedéet waroo leen koy jox maanaam ñooñu mm. xam-xam bu ñuul rek moo leen mën a faj seen aajo bu ma ne xam-xam bu ñuul nag ça dépend ci xam-xam ba ngay bañ lay defal waaye dafa am ñoo xam ne alxuraan waroo leen koo jegeele d'accord bu ko defee nag ñooñu dangay ngay mën a dugg ñoom ci xam-xam bu ñuul mooy sungu ak reen ak jat fas seen aajo faju am ñoo xam ne bu ñëwee nag maanaam doo leen jegeel xam bu bu bu ñuul. alxuraan lu weex rek moo mën a faj faj seen aajo. d'accord léegi nag comme nit ki ku nekk da lay ñëwal. waaw moo waral ngay fexe gëstu ñaari xeeti anam yooyu ci xam-xam. nit ki ñëwee bu ci mën di bëgg rek nga mën ko cee fajal aajoom. d'accord mhm. loolu laaj gëstu waaye laaj itam gëstu ci nit ki ci boppam ban nga ko ci war a jox. waaw gëstu boobu mënta am te seet amul. waaw mooy li seen Modou ñu dem ba seet léegi doon abonnement ci yow doon rang ci yow mu doon lu ñu moderniser ñoo xamante ni dañuy bind chaque semaine am nañ droit ñëw sëñ Modou wax leen li ñuy li ñuy li ñuy war a saraxe li ñu war a génn ak fi ñu war a moytu su ko defee lépp ci ndimbalu borom ñu mën a fegu lan mooy sa secret ak seet. waaw soo soxna Mbengue. barang gi euh, métti lool. soxna Mbengue. <laughs> dañuy wax ne amul benn hôpital booy dem ñu bindal la garab te consulté wuñ la. dëgg la. consulté boobu nag. Hmm. mooy waral ñu xam li la dal. ak yan garab lañ la war a liggéeyal. pure vérité. te loolu noonu tamit noonu la war a amee ci ñaan nit ki mënut a ñëw rek woo la téléphone wala ñëw ci yow ne la man nangam laa bëgg. Hmm. nga liggéeyal ko ko te xamoo ba xam maanaam lan moo waral lii muy sàkku lan moo ko lan moo ko koy jox waaye boo ko joxee lan moo ciy conséquence. dëgg mooy waral yenn saa mu ne damaa dem ci sëriñ nàngam mu jox ma nàngam mujj ay gàllankoor am ci wala ma feebar mhm. wala sama bunti wërsëg gën a tëju wala nàngam mhm. looloo koy waral léegi nag man damay wax ne euh, su nit ñëwee ci man malaa mhm. malaa wax ne la fay ma nàngam wala mën naa laa fajal sa aajo dama koy xool ba pare dëgg la su ma ko xoolee nag ci laay xamee ne neexut ba neexut waaye soxna Mbayang kii ñëw ci man de man naa faj aajoom bu ko mm. defee ma ne la ah mën naa koo faj de mm. buñ defee ak nii ak nii mm. su fekkee mënu koo faj tamit bu ma ko seetee dinaa ko xam bu boobaa ma ne la est ce que doo xoolaat keneen la est ce que doo xoolaat keneen nag bu ma la ko waxee rek day fekk ne mënu ma koo faj bu ko defee mën a la xoolal keneen dëgg waaye seet googu nag dafa doon loo xam ne mooy ubbi lépp ndax yenn saa yi nit dina ñëw ci yow nga seetal ko maanaam boo ko seetalee day yomb pour nga xam fan nga ko war a jaar ndax nit ku nekk yàlla dafa am nu mu ko bindee dafa am ñoo xam dañ leen a bind ci sawara mm-hmm. am ñoo xam ci ndox mm-hmm. am ñoo xam ci ngelaw mm-hmm. am ñoo xam ci suuf nit ku nekk tamit am bis boo judd am tamit biddiw boo bu mu tombeel loolu yépp nag boo ko xasee xam ci nit ki su nit ki ñëwee di la ñaan loo lam lay diis lu mu diis diis diis diis diis bu la ko waxee su fekkee jaar nga fa nga war jaar day doon loo xam ne teg-teg gi lay doon teg-teg gi mooy da koy jox saafara mu jëfandikoo ko ci guddi gi boo moytuwul dana la woo ne la ah sëñ bi de gis naa nangam ca la nga ma joto la nga ma joto jox de gis naa ci résultat man nag seet damay wax ne mm-hmm. euh, bokkuma ci sëriñ si nga xam ne mm-hmm. dañuy xiixaan kenn naan ko ñëwal ma seetal la déedéet dëgg la man li ma ci am mu néew mu bari damaa doy ndax li ma ci am ci ay nit ñuy ñëw di ma seetloo wala di ma woo téléphone wala ñi nga xam ne dañoo abonné bari na bari goo xam ne maanaam nekkatuma di wut comme ñu ma seetloo gars yi nee nañ mënuñ cee jot newoon nañ ma kaasal ma loolu ci sëriñ Modou waaw que li ma ciy am dafa bari bari goo xam mënatuma euh, soxlaatuma di woo kenn naan ko ñëwul ma seetal la dëgg la ku ma seetal yow yaay dem boole ma ak ay nit mm-hmm. te yàgg naa laa wax ne la dafa am loo xam ne sëriñ si dañ ko war a dépassé ci mm. seet mm. mooy soxna Mbaye ak ñëw di la seetloo nga laaj ko lan moo la tax a jug mu nettali la lépp nga ne da nga koy seetal bu boobaa jërul seetal la wax na la soxla jigéen koy seetal la waaw ak jigéen ju njool ji man nag euh, loolu dama koo dépassé <laughs> man bañ naa ko ba képp ku may seet seetal mhm. sa tur laay soxla sa tur waajuru jigéen waaw amul leneen dëgg la ci laay sukkandiku man laa wax loo xam ne da xam ne carrément sëñ Modou mii de lu ma ko fay lu mu bari mu néew mu bari lépp sama xaalis sànniwuma ko ndax seetal na ma seet gu leer. gu leer nañ seet googu nag. Hmm. du rek euh, wax la sa soxla rek nga dem waaye dana tax man boo ma ñaanloo dinaa xam fan laa war a jaar. ñaanal la waaw loolu mooy consultation. xam xam say sarax. waaw xam say sarax mooy li ma la wax rek. maanaam boo xasee seetal nit ki rek xam nga léppam. d'accord léppam xam nga ko di nga xam li mu bëgg ci yow fan nga war a mën a jaar pour am ko. Hmm. waaye sarax yi nga xam ne moom la war a def. dëgg la nga xam ne kon seet mun ta ñàkk yenn saa yi nag nga dajeeg nit koo xam ne danaa la euh, damaa bëggoon a ñaanlu nga ne ko waaw mu ne la tamit bëgg naa seetlu waaw nga ne ko seet nangam la mu diis ci moom du la nangoo seetlu ne la est kon rek doo ma ñaanal waaye loolu même man boo ma ko defee du ma ko nangu ndax man du ma ñaanal ku ma seetul. d'accord mooy médecin bi du faj ku mu ku mu consulté wul. wul. waaw xëy na nag sëñ Modou moom man nga ne kat mën na seet lool xëy na li muy seete dafa diis waaye man li may seete sax diisut. Hmm. li may seete diisut waaye dafa fekk ne. am na ñu la gën a diis. dafa fekk ne. Hmm. même boo ma doon jox fukki junni ma lay seetal sax fekkee seetal naa la seet gu wér wax la say sarax jar na ko. wallaay jar ko bu fekkee seetal naa la seet gu wér wax la say sarax da koy. jar na ko xam ne seet googu daal nit ñi dañ xam ne lu am solo am solo la képp ku dem ci sëriñ muy man muy keneen. Mhm. na nga nangu mu seetal la ba xam sa soxla. bu ko defee boo leen dee seq wàllum ñaan ngeen doog a dugg ci wàllum ñaan waaye bul dem rek directement ne ko ñaanal ma. d'accord ndax ki xamul lan moo la dal wala lan mooy sa bëgg-bëgg. Mhm. kooku bu ne la dalay ñaanal tamit xamal ne tegu ko ci ci xam-xam. dëgg la mu wér mu wér lool sëriñ Modou Touré moom la ñu àndal ñu fàttali leen rek mu ngi fii nga xamante ni mooy Yoff APEX ci boor yi marathon boo fa ñëwee rek incha allahu taala boo ñëwee taxaw ci maraton bi boo wootee ci numéro yi dinaa ko joxe léegi incha allahu taala dangay ngay daal di eh, gisante ak moom eh, facilement des fois bi nag nañ dañuy wax ne woote bi des fois day faral di metti waaye ki nga xamante ni moo nekk bitim réew mën naa woote ci whatsapp ki nekk ci réew bi na jënd crédit woote loolu bokk na ci li nga xamante ne day yombal seen liggéey ndax ñi ko soxla te yittewoo ko dafa doon ñoo xamante ni ñu bari loolu lañ waaye cheikh bi ginnaaw seet gi ba noppi guddi ñu toll réew mi tàng na géej gaa ngi jël dinañ ci ñëw ci wàllu euh, émi émigration clandestine bi dinañ ci ñëw ci yeneen i jafe-jafe yoo xamante ni jeunes yi ñu ngi koy jànkonteel waaye ku xam dëkk bi xam ne dëkk bi guddi yi ñu toll tàng na lool kenn xamul naawtal la kenn xamul def-def la kenn xamul rab la kenn xamul jinne la bu mu ci mënti doon ban tegtal ngay jox gaa yi pour ñu jëfandikoo ko ci wàllu kaaraange waaw foofu li ma ci njëkk wax mooy nit ñi dañoo bàyyi seenu yoon wala ñu ci bari dañoo bàyyi seenu yoon. Mm-hmm. mooy ndax bu njëkk euh, bu nawet daan dugg si. wala sax lu dul nawet. maanaam daan nga gis maanaam at mu bees muy dugg si mu ne. Mm-hmm. wala nawet buy dugg si. Mm-hmm. ku ci nekk famille ba daanañ dajaloo am lu ñu daan def loo xam ne. depuis maam la woon. léegi nag loolu kenn respecté tu ko. léegi ku ci nekk sa magum bopp nga. dëgg la. doo dem ci sëriñ. Mm-hmm. doo dem ci médecin tant que demoo ba jaaxle. dafay am foo xam ne nag bu fa tollee. Mm-hmm. bu dee da ngaa dem ci sëriñ. Mm-hmm. day fekk c'est trop su dee da ngaa dem ci médecin day fekk c'est trop mooy su fekkee ne yow da nga nekk nit koo xam ne. li nga fekkoon maam ñi daan ko def yëpp gëmoo ko. nga teg ko nële di dox sa doxinu bopp. dafay bëri yoo xam ne dalay fakastal. dalay fakastal te ñàkk jaar fa nga war a jaar rek moo koy waral. dëgg la ndax bu njëkk nit ñi dañoo fonkoon. di aaru di takk di sangu. d'accord bu ñu ne takk di sangu mooy nga muslu ci wàllum cat. Mm. wàllum bët. Mm. làmmiñ ak tamit def-def yi nga xam ne xaw ma balle perdue lañ koy wax xaw ma. waaw maanaam li nga xam ne mën nañ la bañ a viser pour def la ko. waaw waaye mën nañ ko def pour keneen mu échec dal ci yow. dal ci yow loolu dafay am. loo ñooñu ñu naan seen tànk yi dafa neewi parce que dañ dëgg liggéey bu ñu moomul. dëgg dëgg liggéey bu ñu moomul waaye mën nga bañ a mën nañ ko bañ a tuddee dëgg liggéey boo moomul. waaye tey ci misaal. waaw am na ci xeetu liggéey yoo xam ne dees na ko def. waaw yow mën nañ laa bañ a pour liggéey la waaye mën na mooy kooka mën na am kaaraange moom mooy te bu mooyee forcément day dal ci day dal ci ay nit. day dal ci kenn. yow mi nga xam ne amoo kaaraange noonu loolu mën na dal ci yaw dëgg la moo waral nit ñi. Mm. faaw ñu bàyyi waat xel seen bopp. Mm. di jug di di wut kaaraange. kaaraange. muy góor muy jigéen. Mm-hmm. te jamono ji réew mi da ko da koo laaj. li tax mu laaj ko mooy gis nañ li fi xew lépp. bu te liñ naan euh, ay du yam ci bopp boroom déedéet boo dee xool euh, jamono ji ñu génn yëpp. Mhm. yàlla nag mi ngi ciy def sutura mi ngi ciy def ndox mu sedd. Mhm. tey ji ñaan mu gën a yokk waaye. Mhm. da ngay xam ne maanaam. ay daal du yem ci bopp borom ndax bari nañu ci loru ñoo xam ne seen yoon nekku ci. dëgg la loolu nag mooy ñàkk kaaraange yow lu loo bokk. gaañu ca loo bokku dañ nga ca gaañu. maanaam loo xam ne sa yoon nekku ca. dana dana law ba agsi ci yow. waaye loo bokk tamit. dana la indil gàllankoor léegi li koy waral mooy mhm. nit ki dafa war a fexe di di aaru mhm. léegi nag ñu bari dañoo jàpp ne dañ naan man aw ma aw may million aw may milliard lan laay jug di takk ak sang wala di naan ak yooyu déedéet eh, eh. maanaam kaaraange nit ki da ko war a wut même bu fekkoon yoroo benn dërëm dëgg la da war di fexe di defar sa yaram wallaay defar sa yaram ndax kaaraange mhm. mooy waral nga mën a tekk ci sa àdduna ndax bëri waa na nit koo xam ne bu guddoon fan mën naa am mën naa am ay million wala mu nekk milliardaire waaye ñàkk gudd fan moo ko waral moo ko amul dara te loolu yëpp ñàkk kaaraange da koy indi da koy da koy indi wala sax nag nga nekk nit koo xam ne mm. maanaam da ngay jàpp ne ay liggéey yu metti moo nekk ci yow fekk cat kese la cat waaw mooy làmmiñ yi dëgg la moo tax nit ñi dañuy fexe di sangu bu ko defee di takku lépp lu fi seen maam yi bàyyi woon tamit ñu fexe faa teg seen tànk. beneen bi tamit mooy lu mel ne wàllum euh, immigration yi ngay wax. waaw dafa am jamono joo xam ne nit ñi xamuñ ko. Mhm. waaye saa bu ñëwee képp kuy dugg ci géej gi waxuma la sax kuy jéem a tukki. waaw waaye boo dee xool ñi nga xam ne dañuy liggéey ci géej sax ñi ciy faatu day bari. dëgg la dafa am jamono joo xam ne day am. maanaam jamono yooyu nag bu accès waaw li gën mooy nit ki bu dee da ngay yëngu ci wàllum ndox nga ci liggéey wala sax ngay jël yoonu suuf bi mm-hmm. bala ngay dem wala dara nga xam bu baax a baax a baax a baax ndax nag da xam ne géej gi am lu lu ci nekk ci moom lu baree baree baree baree bari monde la lu baree bari daf cee nekk mm-hmm. léegi nag mooy waral jamono jooju bu ñëwee képp ku ko xamul booy dem ci géej mm-hmm. lu ci ëpp maanaam faatu daf ci bari kon am na secret yoo xamante ni mool yi sax war nañ koo am ci kaw bu ñu jokkoo ak Modou dañ ko dañ ko dañ koo war a xam nekkul ne rek dangaa war a juge fii dem Espagne mooy waral ngay am jafe-jafe ci biir géej gi déedéet waaye mool bi nga xam ne day jóge exemple dakaar walla dem euh, ba Ndar rek mhm. pour nappi wala dara rek kooku gàllankoor yooyu mën na ko arrivé la koy waral mooy jamono jooju dafa am jamono joo xam ne géej gi dafa am lu muy laaj am lu soxla dëgg la la muy laaj ak la muy soxla nag bu fekkee defuñ ko mm-hmm. yow ma cay dugg day doon danger ci yow bu mm-hmm. fekkee ne amoo amoo ay ay ay ay ay muslaay dëgg la moo tax kon nga xam ne géej képp ku ciy yëngu da nga war di wut muslaay muslaay beneen bi tamit mooy bu dee xale yi nga xam ne ñooy dem ci ndox mi kenn ñaanalu leen ko kenn yéenewu leen ko kenn digalu leen ko déedéet ndax nag mbir moo xam ne tekki rek mm-hmm. moo tax nga koy def te nga xam ne dee moo ci gën a jege pour man du yaay dala koy digal du bàyyi dala koy digal kon dara lu la wala tax nga koy def amut ñi ngi ñaan daal mm-hmm. képp koo xam ne am am rek moo tax nga war a dugg ci géej gi nga bañ a dugg ci géej gi te jàpp ne yàlla am amam fépp la nekk dëgg bu yàlla dogalee nag nga am yoon wu leer woo war a jaar nga jaar ca te bañ a jaar ci ndox mi dëgg la ndax ndox mi nag wax dëgg yàlla am na ñu muy jël te ñi mi jël ñépp dañ naan la damaa bëggoon a tekki waaye nag damaa bëgg a tekki bu taxee nga jaay sa bakkan tamit loolu moom gënut te yaakaar naa ne tamit faw tamit ñu xam ne maanaam foo mën a nekk rek maanaam yàlla euh, sa wërsëg mi ngi la ko fay jox foo mën a nekk dana la ko fa jox olof Njaay nee na njariñ loo fekkee waaw njariñ loo fekkee waaw macha allah mu ngi noonu yaakaar naa ni leer na nañ jar naa bàyyi xel benn parenthèse la bu ñu jëloon ci ndaw ñi eh, jëm ci wàllu kaaraange waaye ki nga xamante ne moo nekk bitim réew di liggéey mbokk yu bari dañuy bëgg kaaraange hmm. non seulement dañuy aar seen bopp ci réew yi ñu nekk ak pexeb tubaab waaye dañuy aar seen bopp itam ci ki nga xamante ne moo nekk ci réew mi te dégg ne diw dem na nga ne naa ko fexeel pour mu dellu siwaat ci dëkk bi ndax warula tekki ci sama kanam yooyu itam am na kaaraange yooyu maanaam ay retour à l'envoyeur wala ay défense yoo xamante ni day mel ni tens lu ama am la lu lu ama am la boo dee xool sama vidéo yi ci ginnaaw doon naa ko leeral waaye nag boo dee xool nit ñi waaw daanaka soxlawuñu ay kaaraange ku la ci wax waxu bayra la lay wax waxu ay affaire xaalis waaye du la wax wàllu yaramam te gis nga nag kaaraange kaaraange dafa am solo mm-hmm. ndax bari euh, bëriwaane na nit koo xam ne ñu ngi koy xeex mm-hmm. te xamagu ko de ndax dara arrivé gu ko waaye bu demee ba pexe yi ñu koy pexeel dal ci kawam ci lay xam ne nekk nit ñi ñu ngi ko doon ñu ngi ko doon xeex wallaay dëgg la léegi nag am na xeetu yoo xam ne yu waar a doy la nga xam ne bu fekkee ne da nga koo def. Mhm. maanaam képp ku la pexeel. waaw boo tëddee guddi dañ lay wan ne la diw de moo dem di la jéem a liggéey. mooy sas cangat la. léegi loolu nag dafa am solo ndax bu boobaa. Mhm. da nga mën a dem ba ca nit ka. Mhm. nga wax ak moom ne ko. dem nga ci sëriñ diw di ma pexeel waaw te du ko di ndax day xam ne lu leer nga koy wax boo tëddee guddi dañ la koy wan dëgg la képp ku dem di la pexeel boo tëddee guddi dañ la koy wan mooy càngat la mooy càngat la waaw léegi nag mm-hmm. loolu benn la ci nga xam ne mm-hmm. maanaam nit ki su ko defee képp ku la pexeel dara du agsi ci yow waaye di nga xam kan moo lay kan moo lay pexeel waaye am na ci yeneen sangat yoo xam ne tey waaw suñ ko liggéeyee ba pare ba pare maanaam loolu tamit sunguf la ma ñëwaat ci sunguf kon suñ ko tey ba pare ci duus lañ koy fanaanal ci douche ci douche lañ koy fanaanal mais buñ ko fanaanalee ci douche. ba oh. pare. Mm-hmm. ba nga yow nga jël ko nga sangoo ko. waaw maanaam képp koo xam ne ma lay pexeel. waaw bay boo nga yërëm ko te xam ne lépp lum lay yéene day këpp waat ci kawam nga ciy teg sa bët. allahu akbar duñ na nag kenn na def nit lu bon waaye nag nit ki am na droit. doo pexeel kenn mais ku la mën a pexeel tamit. mu këpp ki am intention ki am intention jóg di la fexeel. waaw la mu lay fexeel mu dellu mu delluwaat ci moom. waaw ndax xam nga yow bu doon yaa ko pexeel. waaw waaye yow pexeeloo ko moom moo toog rek. xëy na ni la yàlla bindee wala li la yàlla def wala li la yàlla. neexu neexu ko mu dem di la def dara. waaw léegi nag kooku moom kon lu ko ci mën a fekk rek. yow xëy na amoo ci benn daan sa digganteeg sa borom ndax yow defoo ko dara dangaa ngaa protéger sa bopp nit nag dañuy wax ne. waaw su fekkee ne yow yaa yaa am sa xol boo xam ne. Mm, mm. bëggoo ko avancer. Mm. ba ci ñi nga bokkal sax yéene woo leen lu baax. ba ci sax sa sa sa jabar wala sa jëkkër sax yéene woo ko. dëgg la donc kon nag lépp lu la mën a fekk ca la ngay def da ngay xam ne. da ngay accepter liñ naan néeg la. Euh, euh, yéen a néeg la néeg la borom a cay fanaan. mooy loolu waaye daal ñu xam ne. man sama jëmmi bopp. waaw yor naa ay xeeti protection yoo xam ne. càngat yi. képp koo xam ne def nga ko. Mhm. bu la neexee li des ci sa àdduna. waaw jëratul ngay tiit ku la liggéey ci moo xam da ngeen dëkk. Mhm. moo xam dëkkoo leen moo xam dafa dem ca. tuurkatu deret ba wala dafa dem ci fitiskat ba wala fu mu mën a dem ci àdduna jëru ngay tiit mun ta def lu agsi ci sa kaw loolu nag lu assuré la loo xam ne. Mm. doonul loo xam ne dañ naan la ay yaakaar na wala foog naa. su suñ la ko joxee lépp lu la nit mën a def boo tëddee guddi da nga koy gis. d'accord ci lu gaaw numéro téléphone bi 78 la 123 06 56 78 123 06 56 mi ngi fii ci APEX yi ci booru marathon ci lu gaaw parce li ma bëgg a waxtaan ak yow dafa bari parce que preuve yi moom la ñuy jël teg ko ci taabal ji ñëpp xam ni loolaa la gën loolaalul tabarkàlla macha allah ba tey ci wàllu euh, euh, kaaraange googu mhm. da nga wax ki nga xamante ni dañ koy aar mais ki nga xamante ni yaramam dafa yàqu ba pare Serigne Modou Touré dana la jël delloo siwaat la ci société bi nga amaat espoir ki sa bopp d'ailleurs boo sangoo sax ba pare di nga xam ne kii yow mi ki sa wàllu bopp am na lu jóge ki sa yaram nga delluwaat ci société bi mën a amaat langa amoon toj liggéey. ñëwal ma ci damay wax ne sangat moom euh, soxna Mbayang bu fekkee ne xanaa ñàkk koo xam mais sangat. waaw amul lu mu mënta def ci doomu aadama. d'accord nit ki nga xam ne ay jafe-jafe moo nekk ci yaramam tëju. waaw mënta liggéey dara. waaw mënta am xaalis fu mu dugg mu dëgër. waaw ba mu ba mu découragé ci àddunaam. Mm. wala ki nga xam ne ay liggéey daf ko sonal ba mu jàpp ne moom maanaam. ci liggéey ci lay dee. Mm-hmm. dañ koo liggéey ba mu xëy dañ koy liggéey ba mu xëy dee rek mais moom mënut a wax a wax ba duñ ko def dara. dëgg la kooku tamit sangat moo koy xamal ne ko cangat lu mu def ci doomu aadama mais sangat yi ñoo wutee bu mu bu njëkk dafa amoon cangat yoo xam ne daf daan ànd ak ay xeeru dënn. waaw ay paaka wala sémmiñ boo xam ne dañ koo yette. ba ba màggat ay pont ay. doy waar a doy waar waaye léegi man. Mm-hmm. jàngat yi ma gis nit ñi di ko di ko wane dafa simple ci man. waaw maanaam da ngay gis ku la jox benn sunguf rek na la demal sangu. waaw man samay samay sangat nag laa xam. waaw waaye cangat eh, yi ma gis léegi moom wax dëgg yàlla man jàpp naa ne. dafa dafa dafa des dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg man nag xëy na li maam yi daan jëfandikoo ba léegi ci laa nekk. li mën naa mën naa koo yokk waaye nag duma ci wàññi dara loo xam ne dañ dañ ko daan def. man samay sangat. bu dee lépp loo xam ne dafay jëm ci wàllum wërsëg nit ki tëju comme ni nga ko waxee koo xam ne oh. dafa dem ba découragé ci àddunaam oh. yaakaar na ne moom kenn mënatu koo ñaanal ba mu ba ay mbiram changé mm-hmm. kooku bu ñëwee mën naa koo jox càngat goo xam ne bu ko defee dana ubbeeku te lépp lu mu doon xaar wala mu koy yaakaar day day day day day ko da jot loolu leer na waaye loolu man ci leget laa koy sangatee ndax lépp loo xam ne wërsëg la wala nga koy xëcc mu war laa jariñ ci leget lañ koy sang ci leget dëgg la dañuy wax ne nag lépp loo xam ne kaaraange la waaw li gën mooy nga sangoo ko ci ndab loo xam ne armiñoo lay doon. dëgg la léegi nag sëriñ si ñu si bari léegi ràññeetuñ yooyu ñoom dañ lay jox sunguf rek na la demal sangoo. sangoo ko naam nangami fan foo ko baax na. foo ko sangoo baax na sangat dafa am ay ay ay ay ay ay charte. yoo xam ne mooy waral sax yenn saa yi nit jox la dara nga jàpp ne lam la jox baaxul fekk lam la jox baax na waaye charte yee nga manqué la. dëgg la. ubbeeku. Mm-hmm. dañ koy sangatoo ci leget. leget leget moo gën. lépp moom la gaa yi daan def këll. këll waaw. d'accord léegi ci biir sangat yooyu nag. waaw yooyu yëpp ma la wax daf ci daan ànd. dëgg la waaye léegi yooyu yëpp amatul waaye man daal li ma xam te xam ko moom mooy te ma koy liggéey mooy. Mm. képp koo xam ne danga bëgg a sangatu ci wàllum ubbeeku. waaw benn mën nañ la sangat ci bërëb bi ma nekk. waaw. mën nañ la jox nga yóbbu sa kër. dëgg la waaye lu mu ci man di doon dinañ la wax lam war a àndal nga wut ko di ko sangatoo. sangat nag dañuy wax ne bu dee lu baax la boo ko sangatee ci guddi gi tëdd boo xëyee suba di nga ci gis résultat bu dee loo sangatoo ci suba gi la bala ngaa tëdd ci kaw lal di nga ci gis résultat bu dee sangat gu baax la ku weddi ku weddi laaj sa bu seexu waaw man nag sama sangat wax dëgg yàlla ñëwal ñëwal ñëwal sama sama sangat nag dëgg yàlla ku ma ko jox boo ko sangatoo di nga xam ne nag dama lay bàyyi ba nga pare seexu tiir gi cangat loolu ban mbóot la waaw seexu tiir gi moom xam naa ne du ma ko mën a leeral dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg boo ko leeralul man ma leeral ko de. li tax du ko mën a leeral mooy loolu dafay dox ci wàllum rab. d'accord. ndax dafa bëri ñoo xam ne ñi ngi bëgg dara mu dëgër ñu jàpp ne ka leen ñaanal moo xamul dara fekk rab lu ñu leen jox rab a koy yàq d'accord loolu ma ma wax la loolu tey nga nga xamalaale ko nit ñi ñaanlu d'accord bëri waane ci nit koo xam ne mi ngi wër sëriñ si sëriñoo sëriñ mu dem fa di ñaanlu mm. fekk luñ ko jox dana baax mais rabam moo koy yàq bu ko sangoo mu yàq ko d'accord da nga ciy gis sax nit koo xam ne bu dee jigéen la da nga koy jox dara mu sangoo ko ci guddi gi mu ko sangoo mm-hmm. koo xam ne bu dee góor la tey da nga koy jox dara mm. maanaam muy xaar di xaar di xaar ba saafara sa mujj mu tuur ko wala mu mujj fàtte nan laa ko war a jëfandikoo wala sax nag mm. maanaam mu mujj saafara soosu noonu maanaam mu jural ko yeneen ak yeneen yoo xam ne du ko mën a jëfandikoo dëgg la loolu rab moo koy def dëgg la boo gisee nag maanaam général ku ma liggéeyal mm. ma lay jox lii ànd ak séqub tiir gi mu commencé mu ji mu jëkkee ko jiital ko mooy damay mm. bëgg li ma lay jox dara du ko mën a yàq loolu daf koy protéger d'accord maanaam même bu dee da nga yor rab day protéger rab bi ba nga xam ne du am accès ci li ma la jox loolu mooy waral boo ñaanalee nit ki forcement muy gis résultat moo waral ku may ñaanal rek damay xam ne lii ma lay jox boo ko defee di nga am ndam. léeg-léeg nga jox sequtiir gi ñu sang sequtiir gi. waaw euh, def ci ay mbir ñetti fan rek seq gën a xam naa daal la nga yenoo diis. waaw kay li ma ci li ma ci xam te xam ko mooy. wuti ji leen sequtiir gi. li ma ci dégg woo leen ko 78 123 06 56. li ma jaaxal daal mooy. waaw. xam naa ne yaa may laaj waaye xam naa dinaa la mas laaj nooy def ba yenn ci samay mbir yi nga xam ne duma ko faral di wax ci émission ndax sequ tiir gi waaw mosuma ko wax ci émission gars yi nañ dem wëri sama émission mais mosuma ko cee wax nga fexe ba xam ko man xam naa bëgg naa laaj la nan ngay def bay xam samay sekk secret yow daal nit ñi day leer nañ day leer nañ ci gaa yi bu ma mosee damay bëgg gaa yi mos ah waaw kon baax na dem leen mos yi amul nëbbatu waaw kay benn benn preuve ngoog ma ñëwaat ci bi ci des ci lu gaaw euh, ñu ñëw ci li nga xamante ni mooy wàllu nopp nopp moom defe naa ni sa mbir la waaye nag ki la gën a neex mooy ki ñu xañ alalam nga fexe ba delloo si ko palaasam mu dellu si ne riig toog kooku la gën a neex ki nga xamante ni mi ngi ci bureau bi di liggéey mm-hmm. ñu fexe ba taqale ko directeur am nga noobaat seen diggante boobu dafay am ki nga xamante ni mu ngi mi ngi mi ngi mi ngi nekk sax ak waajuram mm. am lu dox digganteem ak waajuram mm. wala am lu dox digganteem ak doomam mm. loolu dañ ciy defi ñaan ba jàmm dellusiwaat waaye bi ci gën a yitte nag moom moom ñëpp xam ko ci yow mooy fas gi nga xamante ni ñetti fas la mm-hmm. ak dugub ji nga dul tudd ñëwal ma ci détail yooyu waaw soxna Mbaye euh, bu dee wàllum noob nag waaw damay wax ne médecin boo gis muy faj waaw dina am loo xam dañ naan mooy mooy spécialité waaw keñ man nag euh, wàllum nopp hmm. bokk na ci li nga xam ne mooy sa yàlla ci la ma gën a maye ci lañu yàlla boole boobaak léegi mi ngi bëgg a yàgg kenn xamul ñaata at la li tax mooy te euh, li tax mooy waaw gis naa ne problème la boo xam ne diggante nit ñi ak nit ñi hmm. dafay faral di indi coono bu bari ci ñoom ndax da ngay gis koo xam ne danaan la yàgg naa dem ci sëriñ di nooblu sama jëkkër wala sama jabar waaye ba léegi dafay mel ne dafay coono jafe-jafe dafay gën a yokk day gën man nag noob damay wax ne euh, xanaa yàlla bañ a dogal nit ki ñu bañ a séq man ak moom mhm. mais su yàlla dogalee ñu nangoo ñu mu nangoo séq ak man ca la ma koy tegoo mu nangu koo tegu mhm. mën naa la waatal ne bu dee bu dee dafay lu jëkkëram rek wala muy nooblu jabaram rek mhm. wallaahi bu ko neexee mu def ko li mu koy def dem toog ci àll ba te xam ne dana ko fekk. du jaas du échec. ndeysaan damay noob ci ñetti anam yu bokkut. te yépp amul benn bu ma ciy def buy échec. ban ak dinaa noob ci sunguf. Mhm. dinaa noob ci fas. Mhm. dinaa noob ci alxuraan. Mhm. waaye dinaa noob sax ci nit woo ma ma bañ koo jox dara toog liggéey lépp def ko fii ni ma ko war a def mu gis résultat. soo soxna Mbaye ak man damay noob bay noob ñaari nit ñu weex. ñaari nit ñu weex maanaam tubaab ak moroomu tubaabam sax. dëgg la dama leen di boole. te du ma mhm. ci sonn. Mhm. pour wax la ne la nopp dama ko jekku. jekku goo maîtriser. jekku jekku goo xam ne maanaam euh, maa ngi ciy sant yàlla bu baax. macha allah di wax tamit ne. Euh, képp koo xam ne da nga am problème boobu. waaw su la neexee. waaw soo ñëwee mën ngaa joxe avance ma liggéeyal la. dëgg la li tax may laaj avance nag waaw su ma neexoon mën naa ne la duma laaj dara waaye xam nga ñaan mooy mbir moo xam ne bu nit ki ñëwee joxu la dara mm. nga ñaanal ko mm-hmm. day des ndax ñaan dafa bëgg nit kiy ñaanlu di sonn di sonn léegi nag mooy waral ma naan la joxeel lii ma liggéeyal la waaye noob moom mel naa ci noo xam ne su ma neexoon su nit ñëwee ma ne la demal ci soxna mbayang bu fekkee wóolu nga ko nga jox ko xaalis ma ñaanal la bu sottee ma dem jaar fa jël sama xaalis loolu nag li ko waral mooy lu ma lu ma lu ma maîtriser la dëgg la lu ma lu ma maîtriser la dëgg la xam ne kon noob daal dëgg la képp koo xam ne euh, am nga problème boobu boo euh, euh, dama bëgg question yi ma lay posé nga di ma ci répondre bu ci nekk par une minute ci nopp laay des ba tey de mm-hmm. fas gi mm-hmm. xam nga am na booy joxe boo xamante ne da nga koy wékk mhm. ci buntu nekk mhm. boobu woccal la pour ki la wan ginnaaw dem mhm. nga di ko ci woo saa añ añ reer ndékki am na boo xamante ne da nga koy takk ci sa ndigg mu féete ki sa kanam am na ci boo xamante ne da nga koy da da koy def ki sa suufu lal nga jëwal ma ci ñett ñetti façon yooyu ci lu gaaw ba pare waa xam nga nopp bi nga xam ne moom ngay takk sa buntu nekk waaw wala kër gi fi nga nekk ci fi nga nekk rek te bëgg nit ki di la fa ñëwal waa boobu bu añ jotee da ko ciy woo bu reer jotee da ko ci woo boobu mooy mooy xëcc nit ki. bala nga koo woo ñetti fan mu ñëw. waaw léegi nag damay wax ne kooku boo koy def. bu hmm. fekk nga nekk dakaar di ko def ku nekk France. dëgg la xelam ngay jaxase muy bëgg ñëw te du mën a ñëw. dëgg la da koy def ki nga xam ne yéen a bokk nekk Dakar. Hmm. su bëggee ñëw ñëw. Hmm. mooy bi nga xam ne moom la ñu takk ci buntu néeg bi boobu doon lu doy waar ndax nit ñi ku ci nekk ak sa problème am na koo xam ne mi ngi sëy ak borom këram amuñ benn problème mais borom kër bi da dun ñëw. dëgg la du ko teg ba. boobaa kooku loolu lay soxla. soxlawul leneen waaw ak ki nga xam ne maanaam moom borom këram dana ñëw ñu bokk nekk ci kër gi wala sax borom këram demut fenn. Mhm. waaye bu guddi jotee. du ko sàkku du ko du ko sàkku bu ko laalee xuloo taxaw. xam nga loolu dafay faral di am. dëgg suñ mbokku jigéen ñi am na ci ñoo xam ne dañ naan la man sama borom kër lu mat atum yàllaa ngi nii. bokkuñ benn lal wala même buñ bokkee benn lal tamit daa tëdd ne côté bee ma tëdd côté bee. am naa ci benn léegi fas googu nag. Mhm. dafay waral maanaam boo ko defee yow jërul nga ci boole sa wax wala xuloo wala. dara yow takk ko rek mu lang sa waaw soo ko takkee. waaw moom moo lay sàkkul boppam. est mu doon loo xam ne luñ luñ def defati ko <laughs> sama copine ba maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax macha allah fa tabarakallah mi ngi fii ci jàmmalaay di ko ziar di ko kontaane. moom léegi mu des benn nag boo xam ne jamono ji moo toj réew mi. bi ma ko fi waxee ba léegi waaw maanaam mën naa ne la mënatuma cee am lu doy. mooy dugub ji. mooy déedéet sunguf bi nga xam ne dañ koy boole lem lañ koy boole lem original. benn sunguf waaw sunguf boobu moom soxna Mbayang euh, moom jaxase na dëkk mais sunguf si dafa jaxase dëkk bi. ndax waaye bii nekk ci biir biiri ferit jaxase na dëkk bi. waaw boobu moom après dinaa la ci leer waaye sunguf bi ma lay wax soxna Mbayang. waaw yàlla xam na ne maanaam defar na ay diggante yoo xam ne ay at. ay at yàqu woon na yàqu na ay at. sunguf boobu ñëw defar ko te sunguf boobu li ci gën a yéeme soxna Mbaye ak mooy mm. Mm. lem rek ngay wut original jaxase kook moom waaye loolu nag ci lim ki mu gën a doy waar mooy ki nga xam ne ki nga amal problème wala ki nga xam ne da nga koy laaj xaalis nanguwu la ko jox wala yéen a ngi sëy waaye sa digganteeg moom dafa desee ñagas wala nekk nekk bi ngeen war a nekk ci kër gi dafa des d'accord wala tamit xëy na lim lay soxla bariwul mm. boo ko xasee jaxase ba raxase ko sa kanam fexe ba sëy ci ak moom mm-hmm. kooku loo ko mën a wax loolu lay def foo ko mën a toogloo foofu lay toog te li ci gën a doy waar mooy bu fekkee loolu am na soxlaatul beneen jigéen jàppal ne. Mm. beneen jigéen bu muy xool wala beneen jigéen bu muy soxla amatul ci àdduna. te loolu looy raxasee sa kanam kese la sunguf boobu daal na nga xam ne. te te benn yoon nga koy use. benn yoon rek boo ko ci defee baax na. benn yoon maanaam nga xam ne sunguf boobu jaxase na biir réew mi fii Sénégal <laughs> waaye bitim réew sax maanaam da koo jaxase moo tax sa émission bi faaw ngay fexe ñuy am moment yoo xam ne ay appel day am wala ñu mën a dugal ay ay témoignages yoo xam ne dinañ euh, mën di leeral ndax man damay wax ne sama mbir man war na maa dépassé fu may toogee di wax maanaam nit ñi may séqal ñoo war a mën a génn seddal ma gis nga sama gis nga sama portable bi ay seede yu bari laa ciy jot ci yow ak ci ñeneen ak ci ñeneen mhm. waaye mën naa jot ci keneen lu safaanoo mhm. koo xamante ni benn vidéo am lay yor sax def ci ay fas partagé ko ñëpp nit ñi di ma ko delloo siwaat ne ma xool vidéo bi ma yónnee muy benn vidéo bi mais mu wóor yàlla wóor yonent bi man alhamdulilahi rabbil alamin lay dégg ci yow ndax détail bu ma la laaj nit ki dina ko soxla ñëw ci yow te jigéen ñi jaaxle wala góor ñi jaaxle ci seen jabar dafa bari te tabarkàlla macha allah lem googu faj na ko fas gi faj na ko wootal bi faj na ko waaye dugub ji itam kenn demul mu des may ma ci une minute rek. waaw dugub ji tamit euh, moom it lu doy waar a doy war la. waaw. ni mu doy waar nag mooy su yàlla dogalee. waaw. yee léegi damay damay xaw a am yu may nëbb ndax damay gis yenn saa yi ci tiktok yi. waaw ñu ci jël yenn ci samay secret. waaw xam nu ma koy defee. waaye dañ koy dañ dañ koy waxee comme ni ma ko waxee bu ko defee nag nit ñi da leen di réeral wala ñuy jàpp ne. dëgg la dafa am yeneen anam yu ñu koy defee yu bokkut ak yooyu. moo tax yu bëree léegi dama koy dama koy faral di nëbb waaye dugub jooju rek. waaw maanaam nit ki mën na am problème bu rëy wala lu yàggul lool digganteem ak jëkkëram wala digganteem ak jabaram. waaw ba pare mu faj aajoom. te yow dugub jooju yaakaar naa ne yow yow mii mën nga cee joxe exemple ndax ñaata nit ñoo la woo ne la soxna Mbayang dem naa fa dugub ji kese la ma jox te sama aajo faju na loolu kenn xamul nu mu toll. ci koo xamante ni moo tax ma ne la yow sa jëmmi bopp faaw ngay fexe tamit. nit ñi. waaw seede yi ñu lay seedaloo nga laaj leen ndax mën nga ko di jàllale ndax nit ñi. man ba man bëgg nañ di ñaanlu waaye nag ñàkk a gis. ku ku leen ñaanal ku leen mën a ñaanal ñaanal damay jàllale sax parce que li waral damay jàllale. Mhm. kenn du fi mës a toog ba dégg sa tur. Mhm. damay jàllale gis nga dugub jooju. Mhm. yaa ngi ko jëkk a teg say teg say ci mbokk moo xamante ni daf ko jël sax yóbbu ko dem fekk ci bitim réew. ci réew yi nga xamante ne moo nekk Sénégal. ci borom kër boo xamante ne ba mu takkee jabar la la fàtte sa néeg ci boppam waxatu sax teg fa tànkam mm-hmm. waaye ba nga lijjantee ba fexe ba kefin dugub ji tabaarkàlla macha allah dafa ne ma damaa mujj daw ñibbisi mm-hmm. mu taalaat otom ñoo fekk si ma fa ma nekk te sant naa bu baax a baax sama diggante ak moom mm-hmm. loolu ay firnde la yoo xamante ne damay wax ne mm-hmm. toog bi ngeen toog fii ëllëg jàkkaarloog sama borom moo ma gën a ñor te du ma waxal kenn loo xamante ni amul damay wax ne la diggante jëkkër ak jabar Modou Touré yow xam nga man xam naa yàlla xam na yaa ci man dara ki ñàkk jëkkëram ki ñàkk palaasam ki ñàkk tooguwaayam ki ñàkk këram ñàkk léppam yaa ci mën dara tabarkàlla macha allah ndax fu nekk lañ may wooyee ci àddina bi di ma ko wax fu nekk lañ may wooyee di ma jox ay témoignages te nag soo ko deful woon it du ma toog fii di ko waxal kenn parce que nag jomb naa ko te ñi may woo di ma laaj ne ma est-ce que li nga wax ci moom dëgg la ñoo ñooñu xam nañ ne du ma waxantu léeg-léeg nga ma diw mi man la xaw ma ci moom dara mm-hmm. waaye mu ture tabarkàlla macha allah côté boobu moom zéro faute képp koo xamante ni am nga jaaxle ci lu mel noonu na la jéem a contacter incha allahu taala dama wax ne sa aajo dina faju numéro bi na nag 78 la 123 56 60 123 zéro 06. defe naa noonu la 123 06 56. 123 06 56. voilà 123 06 56 78 123 06 56 émotion laay demee ci moom parce que tabaarkalla macha allah sama mbokk ma demoon fële ca ca ca ca sowu ba kontaan jax jaaxle woon na lool waaye lépp dellu dellusiwaat na à normal mu ne mu boo toogee moo du Touré rek gërëmal ma ko santal ma ko damay wax ne nopp Sénégal ba mu daj yaa ci mën. waaw ba pare xam nga. macha allah ba pare man li may noobee. waaw lenn loo xam ne dama la koy jox nga ne lii sëñ bi lii mu ma jox mënuma koo def te loolu dafay bëri ci sëriñ si. la ñoo xam ne mën nga leen a jox sa xaalis ba pare waaye lañ lay jox. doo ko mas a ba mu jeex parce que dañuy bañ su résultat amut nga mën leen a wax dara boo waxee ñu ne la ah la ma la wax la la joxoon defoo lépp. dëgg la loolu dafa bëri ci sëriñ si man nag li ma lay jox lépp lépp lépp mën ngaa xëy suba bala ngaa tëdd ci kaw laal nga def lépp. xam nga jox la nopp goo xamante ne dañ naan demal bi ki sele bu yoon ba. ah nga gas ba mu xóot. nga ngarale sa ñaari tànk yi dugal ko ci diggante bi. Euh, suulee ko noonu. waaw yow jigéen attanoo loolu. da ngay ragal ku la fa fekk. léegi xam nga loolu doo ko def. doo ko defal kenn dañ koy jël teg ko léegi nag ba moom sëriñ moom doo ko mën a wax dara boo waxee mu ne la la ma la waxoon defoo ko. man nag lépp lu ma lay jox boo xëyee suba bala ngaa tëdd ci kaw la lépp mën nga ko. mën ngaa matale lépp xam ne da ngay xam ne bu sottiwut ci man la dese. d'accord léegi. waaw wàllum nopp. waaw soxna Mbaye. waaw dama dama lay ñaan dara. waaw mooy ñu fexe. Euh, ñi nga xam ne ñoo lay woo. ak di la envoyé vidéo wala suñ suñ suñ conversation. Mm. di la seedeel ci man. waaw fi ñu jaar ci man ci wàllum nopp. Mm. wala sax jafe-jafe biñ amoon wala niñ sonne woon fu ne ñu dem fa. Mm. ba ñëw ci man yàlla jaarale seen. ba ci ñi bëgg kayit sax ñooñu. ñu bari doon ñoo xam ne ñooy jox ñeneen nit ñi ñëwagul ci man exemplaire. dëgg la wala di leen jox loo xam ne dina tax seen xel dal ci man pour ñu mën a ñëw ci man. dëgg la ndax xam nga ne noob yow. Euh, war naa cee sax dépassé di ci wax ndax xam nga ne soxna Mbaye yow li lay woo sa téléphone bii ak ñi di la ci message wallahi xam nga ne xamoo nu mu toll. du noobër laa la tuddee. waaw léegi nag kon dangay xam ne. solution wàllum noob wàllum yàlla may na ma ci daal ba nga xam ne. macha la koo xam ne am nga ci jafe-jafe. soo ñëwee 24 heures mën naa la koo saafaraal. am na solo naqari naa jot nag. waaw naqari naa gis. waaw loolu nag du ci man du ci dara waaye liggéey bu bari rek moo may. xaw moom moo laaj loolu. noonu la waaye su ma sañoon képp ku ñëw ci man ngir aajo wala soxla ma boo ñëwee man a agsi ci man. soxla jaam yi boo ci taxaw à 100 pour cent ci na ko sunu borom bëggee tabaarkàlla macha allah da ngay naqaree jot. ndax euh, Sénégal euh, ci ba Afrique gépp Europe gépp euh, États-Unis Canada fépp foo fu ci waay mën a nekk rek da ngay jéem a fexe jokkoo ak Mor Touré ngir jafe-jafe bi nga xamante ni moom moom nga am donc li ma leen di wax rek ne mooy bu leen tiit bu leen ragal man sama wax benn la tey bu may waxal loo xamante ni xaw ma ko dama ciy am réserve am noo xamante ni noonu laa ci téye sama loxo waaye dama la wax ne rek kii su solution ci biir kër gi. moo ci man tabaarkàlla macha allah amu ci morom nga ma ci béy wu ñuul bi ak kaso parce que temps bi jeex na tàkk. waaw bu dee wàllum béy wu ñuul bi. loolu dafay dox ci maanaam ki nga xam ne dafa bëgg a ubbeeku. waaw loolu sax maa ngi koy faral di liggéeyal ñu bëri ci ay commerçant. waaw ndax loolu dafay dox ci nit ki nga xam ne dalaa fekk ci ngay toog ci ay millions. Mm. nga bëgg nekk milliardaire. waaw wala maanaam nga doon commerçant bu ndaw bëgg a yëkkati ku yor ay magasin. d'accord wala sax nag ngay doog a door bëgg a jug. béy woowu moo ci gën a gaaw. te béy wi loo ci xamul dama koy liggéeyal sax sama ay mbokk sëriñ. ndax béy woowu. Mm. képp ku ku yàlla dogal nga bëgg a am ci sa àdduna. Mm. da nga ko war a wut. d'accord loolu man mii di wax ak yow laa la wax de. Mm. maanaam weer wu ma dugg dinaa ko def. d'accord ndax man soxna Mbaye yàgg naa laa wax ne la man lépp lu may digal nit naan la lu baax la mm. boo ñëwee sama kër da ko fay fekk mm. bu dee lu ñuy takk la boo xoolee sama yaram fekk ko ci mm. bu dee lu ñuy naan la bu danga ma ñëw fekk ma ma koy naan bu dee tamit lépp loo xam ne luy jariñ la boo ñëwee ci man nga koy njëkkee béy wu ñuul woowu man du toog weer wu ma ko jëfandikoo wut maanaam li muy jariñ mooy nit koo xam ne da ngaa bëgg a yëkkati ko waaw am xéewal gu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw loolu ci loolu rek lay dox beneen bi tamit mooy bu dee ci wàllum nit ki nga xam ne wàllum kaso dañ koo euh, plainte mm. mu war a wuyu ji kooku am na loo xam bu ñu ko bindee ci ginnaawam mm. bu yàlla dogalee ñu bind ko ci ginnaawam te demagul su demee dañuy wax coow coow coow mais dañ koy bàyyi mu ñibbisiwaat bisiwaat duñ ko téye loolu amul ma dem te ñëw loolu nag xam-xam bu ñuul la dama koy teeral leeral mm. xam-xam bu ñuul la boo xam ne du du du ay caaxaan bu dee nag ki nga xam ne dañ koo téye ba pare damay wax ne bu fekkee ne mën nañ ko jox mu lekk mhm. mën naa koo liggéeyal loo xam ne bu ko lekkee du fa demee toilette du fa demee toilette nag yaakaar naa am na nit ñoo xam ne duñ toog journée te di muñ toilette am nit ñoo xam ne duñ toog ñaari fan wala ñetti fan te di muñ toilette wallaay kon nga xam ne kon kiñ téye ba pare solution am na waaye mhm. ki nga xam ne téyewuñ ko solution am na dëgg la li duuf ci nag bi nag lépp xajul ci cin li waaye nañu fexe rek ñu waxtaan say kéemtaan ci kattan su ma sañoon waxtaan say kéemtaan ci ndoxum siti ak yi mais temps bi moo jeex xanaa nga ñàmbaasal ñu ci kattan tuuti ndax sa kattan moom jaratul kenn di ko wax. waaw damay wax ne damay wax ne soxna Mbayang waaw. magasin bi li muy jaay yëpp. waaw kenn mun ta taxaw ci buti sa mbedd ma di gis lépp. déedéet da ngay gis ne magasin la nga dem laaj. waaw ñu wëral la ba gis la nga soxla jox la nga dem. dëgg la sëriñ bi ñaan nag mënut a toog di wax lépp lim xam wala li ko yàlla may. Mm-hmm. waaye li man mooy wax ci yenn yow mi soxla nag yaa koy woone ko man nanga may sama soxla bu ci amee xam-xam tontu la ca bu ko amut xam-xam mu ne la awma ci xam-xam mm-hmm. wàllum kàttan tamit comme ni ma la ko waxee yaakaar naa yàgg naa cee wax ne li ma ciy liggéey képp ku wóoluwut bu la neexee mën ngaa ñëw ci soxna Mbaye ak mm-hmm. jox la ci tuuti nga essayé dëgg la soo essayé ba mu leer na la lu wóor la nag su boobaa nga doog a ñëw ci man ma wax la ni muy demee. dëgg la waaye wàllum kàttan nag na ci nit ñi def attention bu baax a baax ndax bëriwaa na ñu siy jox garab ñoo xam ne. Mhm. lañ lay jox boo ko commencé di naan dana def ay effets secondaires yoo xam ne dafay ñëwaat ci yow. dëgg la ndax dañ koy booleel loo xam ne nit waru koo naan. Mhm. bu ko defee jox la ko ngir kàttan. nga mel ni fas. waaw léegi nag bu ko defee subaa nga amoon far mu buubaale ko yóbbaale. daf lay jural leneen man nag kàttan gi ma yor mooy. Mhm. du da nga koy jëfandikoo rek am kàttan waaye dafay faj li nekk ci yow. d'accord ndax bëriwaane si ñoo xam ne dañ lay jox dara nga naan ko tey bu subaa doo am nga naanaat am. man nag du ma def loolu man li ma lay jox danga koy naan di am waaye dafay doon luy continuer. loolu di wax ne nag euh, kon daal di sant mbokk yi ñëpp rek. jërëjëf di la sant bu baax a baax di la gërëm ci disponibilité bi. man maa lay sant ci biir ak ci biti xëy xam-xam bi euh, buñ ko xamee ginnaaw ñu ko yàlla maye mm-hmm. bu dul woon yéen ñi nga xam ne yéen a koy tasaare mm. xëy na ñu bari mën nañ koo bañ a xam dëgg la kon ñu ngi la ciy sant bu baax a baax ndeysaan di ñaanal ñëpp jàmm mm. waaye di wax ne euh, képp ku ma soxla tamit comme numéro bi ngay faral di joxe rek 78 123 06 56 waaw kañ ku ma ci woo rek mën nga maa jot incha allahu taala incha allah merci beaucoup ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci nangu gi mu nangu ñëw ci suñu plateau bi di Kër Mbayang ni ma leen ko waxee bala ma koo fàtte ginaar gi bu leen bàyyi ginaar gi bu leen bàyyi noor téye leen gars yi ci biir kër gi waaye gars yi itam téye leen soxna yi ci biir kër gi te lépp benn la nag bu kenn jàpp ne rek tabarkàlla macha allah benn bi rek moo tax ñuy wax muy ku jigéen ki waaye am na ci koo xamante ne waxaale naag jigéen ba noppi jigéen joojee bëgg koo wor mu nga bitim réew na ko contacter ci 78 123 06 56 su ko defee di nga xam ne lépp dëgg la kaaraange euh, fer gi ba léegi mu ngi fi nasul fer nag foog ma leeral ko gars yi ñu bari dañ ma naan fer lu muy jar lu mu koy jaayee nasul fer. yaay indi sa fer mu defal la ci loo xamante ni tabaarkàlla macha allah leer na yàlla jeeg du la fekk ca diwaan ba nga nekk xanaa ayox day jeex lépp mënu ko wax ci moom ndax ndaanaan la mbokk yi jàmm ak jàmm merci beaucoup Alibas merci beaucoup à tous les techniciens de Sunugal 24 ak ñi ñu doon seetaan ñëpp rendez-vous incha allahu taala dañ koy joxante ci kàttanu yàlla beneen yoon ak beneen gan ci biir kër Mbayang asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu fi thank you